yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb TV kon ni ñu koy defee rek à chaque fois seen émission jàngat lamb doorati na euh, ma ànd ci nag ki nga xamante ni suma chéri la sama compagnon de guerre muy jiili wala sama moom dama koy bàyyi ñu nuyu mu nuyoo après nag ñu xaw tey ban ban écurie euh, day dañuy kii wati <laughs> sama chéri lay ziar bu baax a baax a baax di nuyu mbokk internet yi seetaan Wassare Lamb fépp waaye mën a nekk ci àdduna moo xam ci réew mi ak bitim réew ñu leen di jaajëfal eh, di leen wax ngeen gën a yokk ñaan yi rek ndax népp lu mu wasaare làmb mel yéen la eh, mënuñu leen a fay ndax gis nañ ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di la nuyu di la siyaar bu baax a baax a baax. di la fayati ndax yow sama chéri nga nee naa la su ma plateau bi rek xam nga rek. contentement bi day ëpp moo tax gis ni ma lay catalee nii. ñoo bëggante. waaw <laughs> ah, loolu dafa leer. Ah, di ko béggewaat bu baax a baax moom sama chéri. Mm-hmm. mais nag tey dañuy waxtaanee euh, benn écurie boo xamante ni. Mm-hmm. mën nañoo wax ni sax ci banlieue bi la nekk ndax nee naa leen wasaare am na ñoo xamante ni dañuy toog seen kër yi. wasaare kese leen ñor. Mm-hmm. te nag comme que dañoo nekk ba léegi nag ci corona di ñaan yàlla feebar bi jóge feeg jàmm ak salaam euh, ñu dugg ci lu doy waar loo xamante ni nee naa leen chaque jour dañuy dem xool leen tey écurie boo xamante ni bilan am ñu xool xare yi fa gën a xarañ révélation yi loolu yépp mm-hmm. mën naa am ko ni nga koy waxee daanaka sax euh, écurie yépp kii nañ leen. waaw daanaka li ñu dese ci écurie bareetul parce que écurie yi ci ëpp. Euh, joxe nañ seen bilan daanaka li ñu dese tey ci écrit bareetul mais écrit yëpp incha allahu rabbi euh, du ma ne dinañ dajal écrit yëpp mais dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba écrit yëpp incha allah am nañ bébétu dajal ñëpp écrit bu nekk ñu tudd palmarèsam comme ni ñu koy tuddee ci yeneen écrit yi ndax wasaare làmb euh, ñu écrit bu mag ak bu ndaw xàmmewuñu surtout mbër mu mag ak wër mbër mu ndaw Euh, na nga am licence na nga nekk écrit boo xamante ni euh, écrit bu ñu xam la wala soit nga doon tur nga doon écrit rek euh, wasaare dina ñëw ànd ak yow waxtaan ci li nga xamante ni mooy palmarès bi tey nag am na écrit boo jël écrit boo xamante ni am na ay xale yu fa nekk mais ay jàmbaar écrit boobu ban écrit la. Mhm. muy écrit jàmm ji bu kër Mbaye Fall. jàmm ji ah, kër Mbaye Fall moom la ñu mm. fas yéene waxtaan euh, waxtaan euh, ba léegi xool xale yi nga xamante ni peut-être ñoom ñoo ñoom ñooy révélation yi mm. parce que ñun ci loolu la ñuy yëngu ndax gën nañ ñi xale yi tey ñoom ñooy dooni tey Balla Gaye ñooy dooni Modou Lo kon ni koo mm. ko rek jàmm ji boo kër Mbaye Fall te su ma nee jàmm ji bu kër Mbaye Fall sa xel ci kan lay dem bari na ay ndaanaan yoo xamante ne ñu ngi ci écurie boobu jàmm ji bu kër Mbaye Fall Euh, tête de file bi euh, suma juumul mu ngi tudd. amul frein amul frein amul uh-huh. nekk xale boo xamante ni euh, yàgg na ñëw ci làmb am lu bare bare loo xamante ni daan na ko fi wane combat boo daan gis day wuyoo turam amul frein du taxaw foo nekk mu fekk la fa bu arbitre bi sifflé bu dee xeex la yaa ko tere neex bu dee bëre la tamit ci yow la des mu doon mbër moo xamante ni amoon nañ ci moom yaakaar mu jékki-jékki ñu gis ay gàllankoor wala ay xat-xat yoo xamante ni euh, mbër mu nekk jaar na ci euh, ñu koy xamal rek que làmb noonu la euh, làmb moom du chaque jour lay neex parce que bu ñu nee làmb rek tey mun ngaa làmb daj suba nga làmb doo daj ni ngay dajee nag mu neex nga am ak say mbokk jible kontaan am ndam boo xamante ni foo romb ci koñ bi ñu commencé félicitation félicitation boo amee defet tamit noonu ngay nekkee ci jàqare tiis ba boo demee sa koñ fépp foo romb rek ñu ne la décourage décourage décourage mbër loolu nag da lay dellu si waat euh, tey parce que bu dul boo xamee ndam euh, xam defet rek da ngay xam làmb li mu laaj parce que da ngay xam ni mos nga ñaar yëpp xam naa li ndam di jar xam naa li defet di jar léegi nag moom amul fereen moom na gën a góor góorgóorlu bi xam ne am na ay xale yu topp ci ginnaawam surtout xale yoo xamante ni ay jàmbaar lañ Euh, xale yu mën a bëre ñu ngi fa ci euh, kër jàmm ju kër Mbay jii mm-hmm. ji li nga wax noonu am am na solo mais pour wax la rek kooku nga ko léegi amul feneen moom mooy tëdd fil bi. Mm-hmm. moom bëri na sax mais moom daan ñàkk. Mm-hmm. Euh, am na xale yoo xamante ni ñoom it ñu ngi ci biir écurie bi ñuy fàttali rek gars yi bilan bi six victoire six victoire la ñoom trois défaites. six victoire trois défaites. bravo parce que ay xale lañ. écurie bi daanaka mën nañ mën nañ ko waxee comme écurie bu ndaw la parce que euh, amul frein mooy tête de file bi mais teewul xale yi ñu ngi wane seen bopp teewul ñu ngi wane seen njàmbaar ak seen ngarmi te bari na ci mbooloo yoo xamante ni tey bu ñuy départ di ñëw ci làmb dañ lay gunge euh, gis naa ci combat kenn ku Ibo Ibo bu Kër Mbay Fall mm-hmm. euh, combat bi mujjee bëre Idaali Ngingue moo ko tëggoon ma koy nuyu au passage fële ci stade Jom Iba Mar mu doon xale boo xamante ni keroog gis naa mbooloo mobilisation bu garaaw boo xamante ni ci xale bi euh, indi na ko keroog ci làmb ja bokk na ci bokk naa ci ñi njëkk taxaw bi mu daanee di ñibbi euh, supporters yi wàcc ànd ak moom ma dem ba ci promoteur bi ne ko booy bi warul ñibbi parce que mbooloo mu mel ni boo ko indee waroo ñibbi idaale xamal ma ni euh, jiili kii de fi mu jugee dafa sori parce que fu nekk la mbooloo jugee ñëw ñii ñu ngi jugee ñoo joor ñii ñu ngi jógee Fimela ñii ñu ngi jógee fu nekk ci ci ci raison yooyu ñëw ngir ànd ak moom dooleel ko pour mu am ndam bu amee ndam rek dañuy bëgg mu ñibbi parce que yoon bi dafa xat ñu koy félicité waat bu baax a baax a baax mu nekk xale boo xamante ni moom iboo fi mu teg tànkam nii ci làmb bu ko teggiwut yëgut boppam parce que am na gëm-gëm bu ma xamante ni gis naa ko ci moom dem naa ba kër Mbay Fall seeti ko jël ko benn interview ñu waxtaan man ak moom ci carrière làmbam lu bare bare mais gis naa ne am na gëm-gëm boo xamante ne mu ngi ci moom moom xale boobu euh, ku ko jàppale nag xëy na fépp fu ñu bëgg a gis champion ci làmb wala fépp fu ñu bëgg couleur Kër Mbay Fall bokk ko ci làmb moom moom mun na koo indi ak ay naataangoom yu ne ci làmb ji. Mm-hmm. Ibo mm-hmm. ci yoon bi. Mm-hmm. mu amaat beneen xale boo ci deux combats deux victoires. allemand. kooku noonu lan nga koy wax. allemand champion la. Euh, li njëkk mooy dafa wane bëgg bëgg làmb ba pare du gis sa adversaire lu mu indi moom saa su ne bu see ci làmb li muy gis mooy moom li mu indi la gëm euh, malgré nag des fois xam nga rek euh, xelu xale mystique yeeg affaire yi dañ ciy taxaw lu lu lu baree bare mais teewul am na ci loo xamante ni mu ngi ci ñoom muy gëm-gëm bi ak fu lay làmb te làmb soxna Fatima li ci jiitu mooy sport bi boo ko bëggee ba pare da am fulla yu bëri am jom bañ defet mais bañ ku la yab ci làmb parce que boo bëree daan malgré di nga bëree daan nit ñi jéppi la nga bëree daanu ñëpp kontaan parce que boo xoolee am na waykat bi ko waxoon mu Moustapha Gueye ne ko da ngay bëree daanu mel ni yaa daan parce que li koy waneel mooy jomam ak fullaam ak mën a bëreem làmb cër gi mu laaj mu jox ko. ñoom xale yooyu dañ koy def allemand boo xoolee euh, combat bokk na ci ñaari combat yi mu bëri yëpp da ci am ndam ñu koy félicité bu baax a baax a baax ni ko mu gën a yokk cere dolli ñeex gën a góor góorgóorluwaat ci entraînement yi làmb moom kenn moomu ko mu gën a góorgóorlu parce que man moom vraiment xale yi laa àndal bëgg naa bëgg nañ waaw kon xale yi lañu àndal parce que bëgg naa tey xale yi ci suuf dem fekk ji ku mel ni Balla Gaye ji kaw fekk ji Gris Bordeaux ku mel ni moom pour quoi pas parce que li koy maye mooy jom ak fulla fayda Balla Gaye boo arrière dix ans ci ginnaaw ku nekkoon di nga bëreeg Yaxya Joob Yékini du ko gëm mais gis nga làmb dem na ba boole leen li ko ko may mooy jom ak fulla ak fayda moo tax làmb daal moo ngi noonu rek euh, làmb kese la tudd ñu leen di encouragé bu baax a baax a baax. Mm-hmm. am na ci yeneen xare ku ci mel ni Laye Bruce Lee ak Joe mm-hmm. Doole Ibou Sankaw ku nga ko Allemand. Mm-hmm. ak Caatu Bambara. Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo am defet ku ci mel ni amul franc sànq ñëw nga ci. ak jàmm ji bu kër Mbay Faar moom it am ci deux défaites. tey mbër bu teg la deux défaites loolu nu muy demee si mbër mbër nga bëre am defet nga amaat combat ne da ngay hmm. nga am ci defet loolu mbër lan lay def ci mbër. dal na ay mbër yu mag ci làmb. Balla Gaye 2 dal na ko. bëre na combat am bombar Bombardier ñàkk ko jël ama seen bëgg rectifier erreur ñàkkaat ko. dal na Garga Mbossé ci ñaari combat jël na Falaye 2 ñàkk dem jël Bébé ñàkk. bëri na ci ay mbër yoo xamante ni tey ay champion lañ ci làmb te loolu dalee na a dal parce que li tax mooy euh, saa soo amee defet rek ki la daan warulaa daan da ngay jàpp ni war naa mën a jëlaat beneen combat pour rectifier sama erreur boobu boo jëlee beneen combat nag nga am ci defet li nga war a def mooy nga taxaw seetlu mooy ñaari defet laa tegle waruma am ñett defet tegle ko léegi nag adversaire bi ngay jël da ngay xam ban adversaire la du doon li liñ naan combat day am combat yoo xam ne combat négocier lay doon da nga koy négocier ni nga koy mën a négocier nag du da ngay fekk benn mbër moo xamante ne kenn xamu ko wala dara ki mais ni nga koy négocier mooy na nga xam adversaire bi ngay jël na nga xam li mu mënee na xamul lu mu mëneewul nga entraîné ci combat bi gën ci góorgóorlu parce que waroo def ñetti defet euh, tey moom mu xam ni rek euh, làmb njëkkewu ko fi ci làmb tey du ko mujjee ci làmb na gën a góor góorluwaat ñoo taxaw seet loo xam ne saison bi tey yàlla moo tuddoon nii dina bëri ñaari combat ñaari combat day perte te bu mu tax mu découragé ci làmp parce que des fois xale yi am na ni yenn niveau de mentalité boo xamante ni day nekk ci ñoom boo bëree daanu daanuwaat rek am na loo am na gëm-gëm boo xamante ni bu nekkul ci yow rek alors que da ngay naan non naa bàyyi non làmb gisuma fekk du loolu bari na ci mbëri yoo xamante ni bi ñuy doog dugg ci saison bi ay defet lañu ubbee. seen première combat arène defet lañ mujjee te gis nga noo mel. Eumeu Sène ba mu soog a bi muy njëkk dugg si ci làmbam première sortem yaakaar naa da koo perte. Euh, Garga 2 noonu bi muy dugg si ci làmb premier combat am da ko perte te teewul ñu ngi doon ay champion yoo xam ne mënoo tudd ci xale yi làmb te doo leen ci boole ñu koy wax mu gën a góor góorgóorluwaat. gën a ñëwaat xam ni saison bi euh, jeex na gàtt na ma am jeex na mu fexee am combat bëriwaat euh, góorgóorlu ci wane jom ak fulla ak fayda mm-hmm. ndam moom yàlla moo ko yor mm-hmm. Mm-hmm. moom jàmm ji moom it kon ni ko bàyyi jii la waxee rek ñu koy encouragé bu baax a baax ndax mbër am na fooy toll euh, ndax mbër da ngay bëree daanu bëree daanuwaat nga ni ñi ma doon àndal ñëpp gisatuma kenn loolu gis nañ ko fi mais di ko di wax rek ñoom ñi am te ñoom ñooy encadré mbër yi victoire ak défaite ñoo am. Hmm. ndax nit ki soo ko gëmee bëgg ko mais bu doon tegle cent défaite day tax nga bëgg ko. Hmm. mais nag wax dëgg yàlla làmb moo nekkoo koo xamante ni bu loo xamante ni soo bëree da ngay dem boo daanoo da ngay xaar. Hmm. te am na ñoo xamante ni ñoom mënuñoo ànd ak kii daanu mais nag nañ jàpp ne espoir moom. kon euh, ni ko waxee rek victoire la defet ak match nul. Hmm. ay booy lañ ñoom ñëpp ay xale lañ euh, te wax dëgg yàlla kon ni ko seen entraîneur waxee ñu koy nuyu bu baax a baax moom euh, Ibrahima Dione moom mu ne carrément ay xale lañ te bëgg nañ cee am Balla Gaye Modou Lo hmm. ñëpp te am nañ ci yaakaar mu ne bilan bi wax dëgg yàlla am na ci contentement bu baax a baax comme que waxtaan nañu moom waxtaan bu yaatu. Hmm. dañuy dem déglu ko après tamit ñu xool waxtaan yi tamit yow lan nga ci tiire ñu dem déglu ko ah Adama te ñëwaat. ay ca ñu dem. salaamaaleykum euh, yéen waa wasaare suñu làmb maa ngi leen di ziar euh, di kontaan bu baax a baax ci li ngeen ma laaj ci sama écrit écrit jàmm ji bu kër Mbay Fall ma jiite ko di seen coach di ànd ak ñoom di liggéey jël sama rakk Pape Kane def ko sama adjoint mu topp sama kaw di ma jàppale bu baax a baax a baax a baax ah écrit bi nag euh, ñu ngi liggéey buñ ko sosee yàggul mais vraiment ñu ngi def résultat yu baax a baax a baax a baax ñu ngi def résultat yu baax ren euh, corona bi moo ñu gàllankoor rek waaye waroon nañoo bokk ci écrit yi def résultat bu baax parce que sama xale yi ay champion lañ naam amuñu jàppale nag mais ñu ngi góorgóorlu te gëm suñu bopp lool nag di liggéey trop macha allah vraiment ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey te liggéeyantuwuñ vraiment ñu ngi góorlu sortie yi ma am yëpp ren euh, ñaar rek laa ci ñàkk ñaari defet laa am muy yu ma metti yoo xam ne nii fooguma ko woon sax surprise la ma dikkee ndax euh, ku ci mel ni euh, allemand mi deux sorties yi mu def vraiment macha allah wane na fulla ak fayda ak jom ku ci mel ni laay brisili noonu ku ci mel ni Ibo bu Kër Mbay Faal noonu ku ci mel ni coo doole noonu vraiment xale yi am jom laa yor xale yi am vision laa yor vraiment li ñu manqué daal mooy ku ñu teg loxo daal loolu daal lañu ñu manqué vraiment mais xale yi daal ñu ngi liggéey ci fulla ak fayda waaw euh, saamaan moo ñàkk ren saamaan ak saa kaba saamaan ak saa kaba laa ren ñoo ñàkk te seen ñàkk surprise la ma dikk parce que kenn ku ci nekk ñoom bi ma lay yóbbu stade xalaat naa ne doo doo def ak sa adversaire 30 secondes waaye nag jaam ak fexe yàlla ak dogalam caatu Mbambara aussi def premier sortem Bargny par kaw vraiment muy xale bu am ama am jom ama am fulla ama am fayda am vraiment ci li muy def nii daal vraiment am naa ci kontaan trop trop trop trop am naa ci ñoom yaakaar daal macha allah vraiment ku ñu jàppale daal dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ def dinañ egg fi champion yi egg daal vraiment war nañ faa a egg. parce que am nañ vision bi am nañ xam-xam bi tamit mi ngi fi ki di Pape Kane di sama rakk di sama lépp mu ngi sonn ci xale yu guddi ak bëccëg waaw mooy sama adjoint moom laa def comme adjoint coach ndax des fois nii moo fay nekk mooy ànd ak xale yu guddi ak bëccëg yéen waa Wassare Lamb daal lu ngeen ci mën a jàpp daal na ngeen ci jàpp waaw Baye euh, Djily ba léegi euh, ñu ngi ci émission jàngatu làmb. Hmm. Euh, dégg nga li nga xamante ne moom mooy entraîneur bi li mu wax muy Ibrahima Dione. Hmm. ñu koy jaajëfal bu baax a baax dégg nga li mu wax ci bilan bi nee na bilan bi wax dëgg yàlla am na ci contentement. Hmm. ndax gis nañ ni coronavirus bi sax moom moo tax lépp taxaw. xale yi wax dëgg yàlla ñu ngi dégg nga sànq li nga wax rek ndax nee na révélation yi xale yëpp la kontaan si moom. tête de file bi nag muy amul frein moom ñu jógee woon xam sa cosaan ñëw rejoindre leen ci écurie bi. Mm-hmm. moom daal la ñuy xam ne kon manque de repère bi sànq li ñu doon wax rek. Mm-hmm. Euh, ndax maa ngi la doon wax sànq dafa xaw a retard ndax retard moom moo tax tey amul frein fi ay moromam toll. tey mënoon naa toll foofu noonu. Mm-hmm. mais nag kon li nga wax rek jaam ak pexeem. yàlla ak dogalam mm-hmm. te comme que jëli ko ko retardam xamuñu. lan moo tax mm-hmm. mu retard soit am na ci lu mu nekkoon wala lool mais incha allah dinañ ci gën a xuus ak moom gën a am ay information mais daal li entraîneur bi wax yow ban jàngat nga ci am. Euh, jàngat bi njëkk mooy euh, soxna Fatima li Ibou waxoon rek daf cee dellu si. nee nañ Kër Mbaye Fall xale yu am jom ñoo fa nekk xale yu am fulla ñoo fa nekk. xale yu bëgg làmb bëgg goxu Kër Massa Kër Mbay Fall ñoo fa ne mais jàppale lañu amut tey moom it loolu la waxaat nee na malgré amuñu jàppale mais ñoom ñu ngi góor góorlu ba tey fépp foo xamante ni ñu ngi fay tudd làmb rek boo tuddee Pikine tudd Géejawaay tudd Kër Mbay Fall li koy waral nag mooy euh, am na gëm-gëm boo xamante ni war nañ ko mën a yóbbu ci dëkk bi nag dafa toll foo xamante ni euh, kaay dimbali ma du force mais autorité yi nga xamante ni ñu ngi Kër Mbay Fall war nañu mën a gestuwaat euh, écrit jàmm ji bu Kër Mbay Fall xam ne ay xale ngi fa mais ay xale yu bëgg sport bi et mën ko parce que des fois di nga bëgg dara sax mais doo ko mën euh, ta ta ta ta xam nga ni yow bëgg nga làmb trop macha allah man bëgg naa làmb Ousin bëgg na làmb sañ Bas bëgg na làmb parce que ñun ñëpp suñu waxtaan lépp waxtaanu làmb la mais da ngay xam ne mënuñu ko bëgg nañ po bi mais mënuñu ko am na ci mbër yoo xam ne dañoo bëgg po bi ba pare mën ko Euh, équipe di jàmm ji bu Kër Mbay Fall bari na ay xale yoo xamante ni ku leen teg loxo tuuti rek ñu dem léegi nag autorités yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk ba bu ñu xaar xale yi di leen seet saa yoo yëgee xale yi am nañ combat woo leen moo xam mu néew moo xam mu bari nga yëkkati sa ñaar fukk jàppale leen parce que sa doom nga jàppale jàppale leen sa rakk nga jàppale jàppale leen euh, sa bopp nga jàppale surtout parce que fépp fu ñu tuddee Kër Mbay faal dinañ tudd mbër moomu te dinañ tudd maire dëkk ba kon ñu ngi ñaan rek képp koo xamante ne autorité la mu ñëw jàpp ci ku mel ni amul frein wax nañ ci moom euh, ne écurie xam sa cosaan la jóge woon ñëw fi nga xamante ne mooy écurie jàmm ji bu Kër Mbay Fall li ko jëlee xam sa cosaan tey mun naa ni daanaka mun na koo boole ci tolof tolof yooyu parce que mbër bu demee ci écurie ba jóge fa dem ci beneen écurie mooy écurie ba mu nekkoon gisu fa boppam tey équipe bi mu yaakaar ne bu fa demee euh, dina am li mu bëgg fa la dem mais première sortem dafa ñàkk nee na entraîneur bi wax na ko nee na amul frein li tax mu ñàkk du du du yaafus du ñàkk entraîné mais tey yàlla suñu borom moo tuddoon ni euh, war na mën a ñàkk ak xeeb adversaire am kon euh, manque de repère parce que gëj a bëre tamit baaxul ci mbër mm-hmm. li wolof naan ku ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw xeeb mbër ñàkk repère yooyu yëpp bu amaatee beneen dina ci tirer leçon gën a góorgóorluwaat ñu leen di jëfal bu baax a baax a baax ñoom écrit jàmm ji bu Kër Mbaye faal di leen wax ñu gën a góorgóorlu gën teg seen tànk dina baax incha allah. dina baax incha allah Baye Djily kon li ngay wax rek gis àdduna moom dafa nekk loo xamante ni ndax moom mi ngi ko wax nee na écrit bi bañ ko sosee yàggul. Hmm. mais gëm naa ni incha allah xale yi fa nekk un jour euh, dinañ jël drapeau bi. Hmm. ndax affaire bi gëm-gëm la rek. Hmm. nit ki am na ñoo xamante ni ñi ngi def benn affaire donte sax même bu ñu mënut. ñu ngi góor góor góorgóorlu. Hmm. ndax fii euh, kenn mënul ki yàlla dimbali rek moom moo fi hmm. nekk. Hmm. ñoom waa jàmm ji bu kër Mbay Fall ñu leen di félicité bu baax a baax naa leen chapeau à a ndax wax dëgg yàlla ay xale lañ te am nañu yaakaar Modou dina fa jóge Balla Gaye dina fa jóge Lac de dina fa jóge Eumeu Sène eh, bari nañ macha allah nañ am nañ gëm-gëm bi. waaw jii Djily euh, loolu la indiloon tey ci bilan. Hmm. écurie euh, bu jàmm ji bu Kër mbay Fall. ñu def hmm. six victoires trois défaites euh, loolu daal lañ leen indiloon jii Djily. Hmm. yow mi nga xamante ne mën nañu wax ne Balla Gaye ak ki nga xamante ne moom mooy Baboy. yàgg na yàggul bëri nañ fi wax nañ fi lu ne doo gaynde bu Balla moom suy bëri lu ne ñu dem ba benn instant gis ñoom ñaar ñu ne ay xarit lañ dem ba benn instant dafa raw sax xaritoo. ndax tey nit koo wóoluwul doo ànd ak moom sa kër. Hmm. doo ànd ak moom muy Baboy ak Balla Gaye seen relation nan nga ko gisee ba pare. Euh, soxna Fatima li njëkk mooy xarit kenn du ko tànnal kenn nit ki moo lay wóolu euh, ngeen am lu ngeen séq yéen ñaar nga mën a doon xaritam. Balla Gaye euh, li leen jiite lieu bi leen boole mooy làmb. Euh, ci làmb lañ lañu la ñu xamante ñoom ñaar am contrat war a bëre ñoom ñaar seen signature contrat bokk na signature contrat yi gën a saf ci làmb euh, waxante nañ lu nekk ñoom ñaar euh, xalabante nañ ci lu nekk ñoom ñaar Balla Gaye wax na ko lu nekk Ba Boy wax lu nekk ñu bëre ñoom ñaar stade Iba Mar Diop non Demba ñu bëre stade Demba Diop Balla Gaye daan ki nga xamante ne mooy Ba Boy mm. ci wër ndomba boobu mu ko daane woon Euh, tey ñu demaat ba jamono di jot euh, Baboy moomu Balla bëri bëriloon ñu dem ba nekk ay xarit ñoom ñaar moo lay wan ne yàlla suñu borom mën na lu nekk parce que du du du caage ni ci làmb ay nit di doon ay xarit du du du loolu loo xamante ne lu bees la ci làmb parce que boo xoolee diggante Eumeu Sène Gris Bordeaux bokk na ci combat bi gën a métti ci combat yi. Euh, ba pare euh, teewul ñoom ñaar fi mu toll nii ay xarit lañ. ba pare bokk benn dëkk. ba pare bokk benn nekk ay kay bokk nekk ay dëkkandoo te dëgg dëgg mbokk mooy dëkkandoo. sa dëkkandoo tey daanaka mën nañ ni mooy sa mbokk. parce que lépp lu xew moom ngay njëkk a gis. li euh, li firnde bu mënul jeex mooy Gris Bordeaux bi ko courant bi maasee am seen bokk na ci ñu njëkk këram. moo lay wan ni kooku tey mënoo koo fay. parce que soxna Fatima ñaari yi wala ñett yi ku la ko def deseelatu la dara ci àdduna. Euh, gis nga ki la tëj kaso ki la tuddee doom ki la yóbbu màkk te seelatu la dara ci àdduna. ki la tëj kaso ki la ah, waaw kooku tey mën nga ni tey boo boo kaso ki ko def rek kooku tey mën nga ko tuddee koo xamante ni tey euh, booy wax ni mën nga ni ah kii de yéenewu ma jàmm. parce que kaso ni mu mel nga tëj fa doomu aadama ci sa coobare bopp parce que des fois nit mun na faa tëju ci erreur mën ngaa yóbbu yóbbu nit police nag. pour pour corriger ko bokkut ak nga tëj nit kaso. comprendre ñaari mooy kilo tuddee doom bëgg na la bëgg na sa jikko kooku bu sañoon nga gudd fan. kooku bu sañoon tey ki mu la tuddee jikko yi nekk ci yow yëpp mu ne ci moom ñetteel bi mooy ki la yóbbu màkk deselatu la dara bu sañoon àjjana yaa fay jiitu kon tey ñooñu mënoo leen fay euh, bu ñu demee nag ba ñoom ñaar tey Baboye ak euh, Balla Gaye ñu doon ay xarit mu doon kot som ñuy kii indi na ay polémique parce que diggante Pikine ak Guédiawaye dër bi la musa doon ama seen adversaire ki nga xamante ne mooy Balla Gaye la euh, Boy Niang adversaire Balla gay la te Baboy ku ne xam ne ni Pikine ñoo ko yàgg gunge ci lu nekk looloo waral bokk na ci coowam li tax mook Pape Sarr duñ juboo loolu la Pape Sarr doomu Pikine la euh, couleur Pikine défendre na ko fu nekk flambeau Pikine yëkkati na ko fu nekk bu demee ba gis baabooy mi nga xamante ni doomu Pikine la Pikine yàgg nañ ko gunge ci làmb yu ne tey mu bedd Pikine euh, ci nu ma ko mën a waxee mu bedd Pikine dem ànd ak Balla gay euh, moo lay wan ni am na loo xamante ni tey làmb rek moo ko mën ah, man nag su doon man la tey de ma part personnelle euh, du ma ne baabooy bu mu ànd ak Balla gay mais na fexe ba diggante mag Pikine mu ratax na fexe ba digganteem ak Pikine bu mu am benn ñagas ñagas boo xamante ni euh, am na ci parce que Baboy lu mu mën a xew rek mooy moom lu mu wax tudd Pikine kon na gën a xoolaat seetlu euh, xam ne làmb dafay jeex mais après làmb bu jeexee ban taxawaay ngay am ci sa diggante ak say rakk ban taxawaay ngay am ci sa diggante ak say doom ban taxawaay ngay am biir Pikine bi nga xamante ni tey amul kenn ku mën a tudd mbër te doo tudd suñu papa Falaye Balde doo tudd Pape Diop. doo tudd Njaga Jóob doo tudd ñooñu ba ci Mouhamed Ndao Tyson ba ci tey baabooy mii ba xale yi nga xamante ni ñoom ñoo mujjee yor puso bi euh, ñu leen ñaanal ak jàmm euh, di ko wax ni daal xëy na euh, am na lu ci ne ci biir mais du du lépp lañ mën a wax ci presse bi du lépp lañ mën a parce que wax nag yombul te tey am na nu may waxee ñu jàpp ne xëy na dafa am benn xeer bu may sànni wala alors que demeewul noonu sama gis-gis rek laa waxee euh, ndax wax nag dafa metti bu baax a baax mm-hmm. mais dégg-dégg moo ko raw. Euh, loolu daal la amoon loo xamante ne bëggoon naa ko cee sànni. Mm-hmm. mais Baye mm-hmm. Djily xam kii wutul ndax da ngay gis ka euh, Balla Gaye ak ki nga yàgg bëgg yàgg koo fan. bu dee ak moom te jàmm moo am seen diggante. Hmm. Baboy polémique bi mu njëkk indi euh, bari na. Mm-hmm. combat Balla ak Modou mm-hmm. xam nga ñëpp xam nañu Modou Lo rakkam la mm-hmm. parcelle ndax Modou Lo bu bàyyi booy daan entraîné daan téye ngemb bi seen premier combat gis nga ci camp bee la nekkoon mais lu ñu naan yàlla rek euh, mooy nekk loo xam te ne gis nga ñu mën a ñiy ànd chaque jour yàlla da ko defe ba pare mais kon li nga wax rek Baboy yàgg naa bëggal waa ko ngir ndax ki mu tuddee boppam rek ba léegi couleur Pikine lay défendre Baboy nag ba léegi couleur lay défendre mais relation ak Balla Gaye kon li wax neen Balla Gueye rakkam la Balla Gueye moom moo ko bëgg nit nag boo demee benn instant ngeen di loo xamante nii rek loo xamante ni kenn mënu ko wax. Hmm. ndax man am na lu ma ci xam tuuti. mais euh, tey su ma am na ma ci xam tuuti mooy da gis ñoom ñaar dañuy jëflante. Hmm. nga xam ne ñoom ñaar dañoo bëggante yàlla moom moo koy def. wolof moo ne hmm. koo xamul noo koy def. nam la def a tax ndax ñoom ñaar ñëpp a tafonte. baabooy li nga wax dëgg la nañ dem Pikine ndax relation ak Balla Gueye mënatul kenn mënu leen a séparé. comprendre nga mi ngi mel ni tey Ama Balde ak Balla Gaye hmm. mais lépp dafa rafet. Hmm. ndax Ama pikin la dëkk drapeau Pikine lay défendre mais Balla Gaye am la am na ci droit. Hmm. Euh, kii di ki nga xamante ne moom mooy Baboy Eumeu Sène Ama ñoom ñëpp. couleur Pikine lay défendre mais lamb moo nekk loo xamante ni dafa fiir. ndax tey mënul am ay bati ay Balla am ay adversaire Pikine tey Baboy bu leen kiiwee rek day am neneen. nu muy nu muy demee. Hmm. mais daal li ma leen di wax lépp rek nañ ko def ci fair play Baboye def na fi lu ne ci kër àdduna mbëroodi lañ ko tuddee woon relation ak Balla Gaye ni ko gisee rek nañ ko jàppee noonu. mënatul défendre couleur Pikine moom ah. Baboye. non si moom lay défendre su ma nee mënatu koo défendre parce que xam nga lu tax soxna Fatima mënatu koo défendre. Mm-hmm. tey làmb dafa garaaw. Mm-hmm. ñu bari ñu wax diggante combat Boy Niang ak Balla Gaye 2. su amoon ah. mënatul dem Pikine mm-hmm. la yem. ci ci Balla Gaye kon daanaka kon mën nañ ni défendre tour couleur Pikine parce que nag xëy na wax ji mooy metti rek mais bu ko waxee bu ko deful yëpp euh, kii di baabooy bu amoon combat ba booy ñaaw bu amoon combat Balla gay dina moytu baabooy bu baax a baax a baax parce que làmb moo laaj loolu. te Balla moom it ba léegi nee na ak Gris Bordeaux mm. taxaw ndax instant bi daal. ma a ca. waaw moom pour l' loolu la jàpp. Hmm. mais daal euh, comme benn parenthèse la woon rek te actualité la bokk. Hmm. te wax dëgg yàlla ñoom luñ bëgg dañ koy def. loolu moo tax mais ñii duñ seetaat ñoom ñoo gën a xam lépp li ci des nañ leen ko nañ ko bàyyi ak ñoom après ñu cliqué ñu xool réponse yi ñu demee kon yéen a ma gën a xam. <laughs> cant ak gërëm. ñal na la <laughs> xanaa ñu tàggoo tàggoo du tàggalikoo lan ngay tàggatoo. <laughs> tàggoo ci émission bi. bu dul tàggalikoo la tàggoo ci émission bi rek. Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñëpp ñi nga xamante ni euh, ñu ngi dund wasaare làmb di ko bégee di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax euh, tey nag dafa am sama ñaar ñoo xamante ne samay xarit lañ samay doomu ndey lañ samay lépp lañ te ñoom bu ñu amee bés te waxuma ko rek damay tooñ ku mel ni Ousin bu wasaare mu koy ah. souhaité joyeux anniversaire sama doom jooju nga xamante ni am na jom bokk na ci réew mi àdduna bépp nawloon nañu ko di ko wax mu gën a góorgóorlu rek yàlla na ma dund cent ans sans ordonnance ni consultation ak sama beneen doomu ndey muy Max Diagne Max nag sama xarit la borom cag-cag yi nga xamante ni moo gën a gaaw sax jege na wóor la gaaw na léegi léegi nga koy woo mu indil la ko léegi léegi Max ma koy jaajëfal bu baax moom di ko ñaanal rek mu gudd fan lool te ànd ak wér Euh, xam nañ mbébét bi mu am ci famille bi yàlla na ko yàlla suñ borom mottali euh, li tax ma gën ko bëgg mooy bañkat la moom day bañ ba dugg ci suufu rondal bi yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit euh, di la tàgg bu baax soxna Fatima di la jaajëfal bu baax a baax commando ah, rek <laughs> si la commando <laughs> ko bëgg loolu amiin amiin amiin amiin amiin ah di a baax mu nekk sama mm. chérie mm. toujours ko dem ko wax sans façon mu nekk bu baax koo xam te ni da ciy jàpp bu baax a baax mais kon ni nga ko waxee rek suñu confrère bi nga xamante ni. Hmm. dafa baax yaatu yaatu de muy Ousin borom PA ah borom PA. Ah, hmm. waa ñu koy souhaiter joyeux anniversaire. maanaam yow doomu ji li doomu ji waaye yow dundal yow loo dund hmm. doyul borom xolu jamaay borom xolu or dugg rek il faut que nga ni jiili wala Fatima te bu ko neexoon tamit mu defee neneen. yàlla sa jàmm yàgg yaa xam li nga bëgg ci milieu bi yàlla na ci yàlla defal jàmm. yàlla may gudd fan. ak wér ak wérle ñu bañ a nga dara sa ginnaaw yow sama mm. copain nga suma xarit nga mm-hmm. euh, di koy remercier waat bu baax a baax mooy ki nga xamante ne moom mooy Adama moom moo nekk tey ci régi bi mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla lay fatigable la chaque jour buñ ne koo acca rek a acca yàlla na jàmm mi yàgg mais ni ma mm-hmm. koy waxee rek à chaque fois borom suñu séeréer bu nice bi ba Bassirou Diouf di ko remercier bu baax a baax ndax lépp moom la mm-hmm. di jaaj di jox ñëpp euh, ni ñu koy waxee rek dig daje ba prochainement ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew la jaajëf ok jaajëf ak muy gaaw ak muy gaaw <laughs>